daal leen ak jàmm sama chaîne youtube bi ci vidéo bi nag dama leen bëggoon wan nan ngeen def ba nëbb seen turu wifi bi ci flybox walla ci airbox léegi loolu nag la may jëriñ par exemple tey soo leen ko activé seen dëkkandoor yi kenn du xam sax ndax yaa ngi ayor ab fii sa biir kër vraiment dina dina tax di di nëbbatu te kenn du ko xamal dara voilà mën nga toog sa kër di def li ngay def te kenn du sentir ndax viewing fa voilà te dina la ter dina la permettre tamit doo am problème say voisin parce que duñ la laaj moo de passe parce que duñ ko xam voilà léegi pour nga def ko nag dangay ngay ubbi Google Chrome léegi soo ubbee Google Chrome nga def 192 point 168 point 1 point 1 léegi soo connecté xaar leen tuuti voilà soo connecté da ngay bës si bouton bi nii léegi fii mos naa connecté moo taxoon tout à l'heure léegi dana la laaj benn mot de passe mot de bi nag moom mook étiquette bi moom ñoo ànd voilà léegi étiquette boobu nag mot de boobu boobu mooy xam nga dafa am foo xam ne partie wi fi la beneen bi nag mooy bi ñu def admin password boobu nag ngeen di ñëw ngeen bës ko fii nii ngeen ngeen bës ngeen bind ko fii léegi soo leen ko bindee boo pare nag da ngeen connecté soo connecté li ngeen am léegi da ngeen dem ci voilà léegi da ngeen gis interface bi soo leen gisee interface si ngeen di bës. voilà léegi soo leen bësee ci fii nag da ngeen di ñëw euh, gis nga fi mu def mooy fi mu def diffusion SSID nga désactiver ko gis nga soo ko désactiver soo ko voilà léegi après nga def appliquer ok léegi ñu def ok voilà voilà léegi tur wifi nag dootu dootu affiché léegi léegi léegi pour nga connecté dañuy copier tour wifi bi. léegi turu bi ngeen di léegi soo leen ko copier donc xaaral ma déconnecté voilà damay retirer voilà voilà gis ngeen doo leen ko gisati fii léegi ah da ngay def ajouter un réseau xaaral ma xaaral ma euh, voilà léegi gis nga wifi bi warul ñëw ah léegi da ngay def ajouter un réseau ajouter un réseau. léegi après ngeen copier ngeen coller tur bi exactement tur bi ngeen joxe fekkee beneen tur la tamit tur boobu ngeen di gis nga tur boobu léegi après ngeen jël mot de passe bi copier ko voilà léegi nga copier ko léegi soo copier voilà léegi ñu voilà léegi léegi suñ ko copier dañuy demaat ci fichier bi léegi nga dem ci sécurité nga def wpa d léegi après ngeen collé ko ci ngeen collé ko moo de passe bi léegi après ngeen def connecté léegi nga def connecté soo defee connecté rek ngay gis na voilà gis nga connecté nga voilà parce que ngay doo seetlu seetloo avant may dugal tur wifi bi tur wifi bi daaw ma ko gis voilà léegi tant soo ko defulee nag soo ko defee nag même kenn su ñëwee ba sa biir kër sax su taalee du gis benn wifi voilà da ngeen def tur wifi bi fii après ngeen dem sécurité ngeen def WPA2. WPA2 après ngeen joxe mot de passe bi mooy mot de passe bi ngeen joxoon sànq léegi après nag ngeen def ok connecté léegi après rek directement da ngeen a connecté voilà connecté nañ jaa ngeen jëf sama gars yi fi la ñuy yemale vidéo fekkee vidéo bi neex na leen ñoo leen ñaan ngeen partage te ngeen abonné tamit jaa ngeen